ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène junior mi ta ndaw ñi dinañ ko boole mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fou ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu. toog ak Ous Ous borom Gàmbi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci mbapat mbapat yi nga xamante ne fekke na ko yu bëree bëri yoo xamante ne tey ku mel ni Yaxya Jóob Mama Lamine Sarr ci nga ci ñi nga xamante ne xam nañ leen waaye mu xam ci ñeneen ñoo xamante ne tey peut-être ñun ñi nga xamante ne ñoo mujjee ñëw xamuñu leen ñu fas yéene waxtaan ak moom ci loolu yëpp dañ koy nuyu bàyyi ko nuyu mbokk internet ñu waxtaan ak moom fii ci Ceekonda Textile ah. waaw Ousmane lay nuyu di la ziar amu promoteur nga xamoo manager nga. waaw Lamine maa ngi fay di la nuyu di la ziare di nuyu waa Ceekonda Textile suñ bitig bu yanj bi nga xam ne ñun fii mooy suñ bitig fii leen ñuy toog di waxtaan fii mooy suñ lépp. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Lutte TV yëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy suivre ci àdduna bi yëpp ñu ngi lay nuyu di leen ziar waaw li nga ma laaj noonu nag ah am na lu ndaw lu ma si xam xaw ma lépp nag waaye am na lu ndaw lu ma si xam si mbapat yi démb comme ñoom Yékini ñoom Yamou saar ñoom Mama Lamine ñoom Bas ñoom Adoli ñoom Famara ñoom Gaynaako ñoom Dalasi bu guddeem Sidi ñu ñëpp xam naa ne fekkee naa ñoom seen jamono. ñu bëre ñu bokkoon même génération est ñoom ñëpp ñoo bokkoon même génération ñoo doon bëree ñoo doon defandoor lépp waaw. Yékini tudd nga ko ci ku tudd Yékini xam ko ci mbapat mu ñëw wane ci boppam donte fekk wuñ ko waaye bëri dóoram tamit mu ñëw prouvé fi ci lan nga ñu mën a fàttale ci jaar-jaar yu Yaxya Joob Yékini ci mbapat. waa ñi ma tudd noonu xam nga mun na ten mbër waaye si ten yooyu Yékini ñi mu si nekkoon morom moo nekk Adoli ah, ak Famara. ñoo ñoo nekkoon moromam ñu waaye mujj gi jot na ñële nag baay bëre ñoom di daanante ñoom ñi di ko daan waaw. léegi léegi léegi lan a ci ay jaloore. waaw Yékini ah mun naa fàttaliku bi mu bëree ajuma samedi ak dimanche ba bi mu bëree dimanche parce que bi mu bëree àjjuma fekkee naa ko bi mu bëree samedi fekkee naa ko bi mu bëree dimanche fekkee naa ko fekkee naa mu bëree jël ay drapo fekkee naa mu bëree ñu daane ko ay drapeau waaw. ay combat nommé la doon bëre wala ci ay tournoi la doon bokk. waaw fekkee naa mu bëre tournoi yu bëri bala muy dem Dakar fekkee naa mu bëree ay tournoi yu bëri. avant muy dem Dakar bëree na ay tournoi yu bëri si foofu noonu Petit Côte bi foofu noonu diggante Fatick ñëw jiloor ñëw Foundiougne ñëw ba Sokone dem ba Kaolack noonu si area boobu dafa doon ñëw bëree dafa doon nekk ajjuma samedi ba dimanche mu di bëree. boobu ci ban tur doon wuyoo Yékini bi la doon wuyoo. boobu yaamu moom doon yaamu moo doon ñëw sol numéro 10 yaamu Yékini dafaa ñëw mu sol number 9 ñoom ñaar ñëpp yaamu nag si mbëri séeri euh, ñoomin kay yaamu moo nekkoon mbër bu mag waaye Yékini nag mujj gi jot na ko bi Yékini bi yaamu dee nag Yékini si la si mbëri ñoomin képp moo nekkoon mbër parce que am na beneen mbër bu fa nekkoon bi ñu doon ooyee Buuba soo ko gisee dafa gàtt ni soo ko gisee dafa nekk comme one mètre half mu ne comme daal. 1 mètre pass 1 ko. waaye dafa mun a bëree temps boobu su paasee yaamul buuba dee moo munoon ñëpp si mbëri ñi nga xam ne ñoo dëkk si ndox bi mbëri ñoomin ko ñoo leen di wax ñoomin ko yi la ñuy ooyee mbëri ndox bi su paasee yaamu buuba moo si munoon waaye afta gi nag mujj gi Yékini moo mun gaay waaw. ñooñu lan lañ mën a woon Yékini dañ koo dàqoon a bëree. ñoo ko magoon ba pare ñoo ko jiitu woon si làmb Yékini time bi mu bëree samedi yaamu mu ngi bëree dimanche waaye fekkante ne di bëree dimanche. benn yoon laa mos a gis fi ñu mayante moo nekk euh, làmbu kii nii mayante wuñ sax parce que tasewuñ làmbu boobu waaye Yékini Adoli moo ko daane Adoli bu nekkoon baaye dëkkoon sum moo ko mbëkk si dënn mu xëm làmb boobu Adoli moo ko génnee Adoli fekkee naa mu daane ko ñaari yoon gay naa ko bi nekk guddem fekkee naa mu daane ko fekkee naa boo yu bëri daane ko yu bëree bëri bëri daane ko dinañ ñëw ci loolu mais da nga wax sànq ni bëre vendredi bëre samedi bëre dimanche lan moo nekkoon différence waaw xam nga am na mbër yoo xam ne ajuma leen doo bëree ak samedi soo demee ba jot sa doole nga commencé di bëree samedi di bëree dimanche soo ñàkkee samedi nga ñëw bëree dimanche waaye yenn saa it am na time boo xam ne da ngaa bëree samdi bëree dimanche man am na benn at boo xam ne Yékini dafa bindu Kër far ba muy dëkki ñoom mbayan mu bëree ba Kër Farba ñu ngay jeex mu bëree foofu samedi dem final bi final bi di jeex ñun ñu ngi yarwaago mu jóge mooy dëkk ñoom Khady Diouf mu ñëw joge ko si jël final bi ñëw bindu si kër euh, kii ni yarwaago bi fekk am na seen beneen mbër bu nekk seen dëkk kooku moo nekkoon mbër bu mag kooku mu ngi bind foofu moom itamit ñu génne ko si samedi bi mu dem bind ci kër Farba loolu daf doo am si làmb yi comme mais mais làmb dimanche daal moo doon gën a tar làmb dimanche bi moo doon gëpp ëpp mbër yu mag parce que mbër yu mag yi da nga am foofu adoli da nga am foofu bas da nga am foofu ñoom maama Maama Lamine moom ajuma samedi dimanche yëpp la doon boole di bëre da nga am foofu Diagne Djilas da nga am foofu Malick Ngéñaan da nga am foofu euh, Yaamu Sarr da nga am foofu Famara kooku felaan la dëkkoon waaye waa sum la da nga am foofu tamit beneen mbër bu ñuy wax gaynaa ko nga am foofu Lencet la ñu ngi ko ooyee Lat Samba ñoo ñëpp da leen doon am ñuy bëree dimanche benn dimanche benn lam yaamu ci côté bëri moom ak Yékini kan moo dàqoon bi. mbër yi nekk si àddina bi yëpp yi ma xam si bëree yaamu moo leen tax a bëri ba pare soo gisee yaamu tey nga ñëw fekk lese yi nekk fa yëpp yaamu su ñëwee séeréer yëpp xam ne loolu su ñëwee soo ko gisee doo ko xàmmee ñoom su fi luur yi nekkee soo fi ñëwee doo ko xàmmee ñooñ ba pare su làmb ji yaamu daal mbër moo xam ne daal am na loo xam ne si làmb gisuma mbër mu ko am mun nga ñëw làmb ji fekk mu ñuul kuk nga ñëw fii fekk mu ngi weex tal xes pecc loolu tamit yàlla daf da am loo xam ne daf ko doon may ba pare làmb yi foofu làmb yi ni mu doon doxee léegi làmb doxeetu ko ba pare woy yi doon am ak wëy yooy du benn Khady Diouf da nga doon dem seen dëkk dimanche jot mu woy ay jaan génn si làmb ji yëpp di dox si kaw nit ñi kenn du màtt kenn tu nga koy gis nga koy gis ay jaan wëy si kaw nit yi fu nekk làmb ji sàkke di foo toog biir làmb ji yëpp nekk jaan xam nga loolu woy cosaan la ma léegi wëykat yi nekk fi kenn mënu ko fee def Eh, ñii ay léegi nag moo laa wan ne woy bu njëkk dafa àndoon ak xam-xam ak euh, kii nii bugg-bugg. mais jaani duñ màtt kenn te nit ñi daw tamit. kenn du daw parce que bala muy kii dineen wax si rajo bi ne dina am lu génn bu ko kenn rey bu ko kenn laal jotewute kenn dara dafa ñëw wàll si comme ñi parce que ñoom fi ñu doon euh, làmbee si ron garab gi paxi garab yi ngay gis jaani di génn fu nekk jaan di fa génne garab gi yëpp làmb ji yëpp nekk jaan. ñun fekkee neen loolu fekkee neen lu bëri si làmb loo xam ne ay cosaan la dañuy dem si dëkk woy ko cosaani dëkk bi di génn nga leer na lii moo cosaani dëkk bi la. mais loolu da nga naan mbapat moo ëppoon mystique. waaw su bëri waaw moo ëpp mystique parce que man gis naa mbër boo xam ne su ripiwaan nii su tëgee tànkam nii da nga gis poto poto bi génn mu tibb ko nii bu tooy xep si diggu noor mu dóor nii tànkam yi génn. mbala waaye yu da nga gis lu garaaw loo xam ne du mu doo am si mbapat doo ko gisee arène bi. yooyu bokk na ci mbapat yi la gën a yéem daal yi yi génne poto waaw parce que Khady Diouf moom ma gënoon a yéem si kat yi parce que Khady Diouf dafa nekkoon loo xam ne ak boobu Khady Diouf moo doon tëgg ak Omar Thiam ak Issa ñooñu tëggkat yooyu Kaolack leen dëkkoon Omar Thiam làmb lu mu tàng-tàng lu mu bëri bëree bëree lu mu bëri kii nii lu mu am tentan su ñëwee am na benn domb su ko tekkee mu wërale ko géew bi làmb ji bàyyi force dafa egg xam nga loolu xam-xam la Khady Diouf làmb lum ki lum tar tar tar lum métti métti am na wëy yoo xam ne su ko wëyee bàyyi fos làmb ji waaye ba pare si biir làmb ji am na mbër yoo xam ne su leen faralee mu wëyalee ñooñu coo koy jël bàyyi fos moo xam xale la moo xam ne su la faralee mu wëy la bàyyi fos yaay jël làmb ji. maanaam Khady Diouf Khady Diouf rek mystique la woon. waaw Khady Diouf xam nga ko borom xam-xam la ñëpp nangul nee na borom xam-xam la te Khady Diouf ak Aline Diouf bi nga doon dégg bi mosoon a bëree Moustapha Gueye ñoo bokk benn dëkk bi dëkk waaye ñu bëri den foog ne mag a rakk leen mbag leen nag ay famille leen yooyu noonu waaye bokkuñ sax kër Khady Diouf mu ngi dëkkee yooni kër Farba ak yooni kii bi Ndorong bi kële mu ngi dëkkee si yooni eh, leeraan bi fële bokkuñ sax kër bi ñu dëkk Aliou Diouf alwaan mooy papaam Aliou Diouf Aliou Diouf man nag kooku moo njëkk nekk suma mbër si àdduna Aliou Diouf ak docteur Faye bi ñu leen doon boole bi ñuy indi leetar bi man a Aliou Diouf la fekk ñu taxaw ak rakkam mataar bés boobu mbaxal leen añee këram ñu ngi xotti comme xotti xam naa yoo xamuloo xotti suna si seen tool bi nekkoon si yooni kër Farba ñum ñaar ñoo fa nekk ñu ngi xotti suna ak rakkam ko isilee leetar bi man maa téye machine bi man ak rakkam bi ñuy liggéey mu jàng leetar ñëw ne ma den ma boole den ma jox combat ma ne ku ñuy wax docteur Faye Dakar ma ne ko ah mënu ma wax si leen waxtaan foofu mënu ma waaye xam naa combat bu métti la waaye dara dama koy jël ma ne ko ah ko baax na moom la Mama mooy phénomène yi làmb kuy bëree si àdduna bi moo la ëpp fit moo la dàqa bëri. Mama njëkk ba. bu nekkoon euh, moo nekk Mama Lamine. ak Basirou Sarr mos naa bëree si Dakar ñoo bokk ndey ak baay alwaan bi nekk buuse Foundiougne mooy seen papa Mama Lamine ñoom Yékini ngay gis nii. ñi ma laa wax nii yëpp bëri naa ñoom ku nekk tëg ñoom te time boobu mutut 80 kilos te ñoo ñu ngi bëri poids lourd bëree naa Malick Nguéniagne time boobu Malick Nguéniagne 150 kilos la mënu ko daan te dañoo bëree jaxasoo wante def lu nekk munu ko daan moo tax Mama Lamine bi mu jëlee drapeau chef de l'État mu toog si télé bi time boobu Yékini mu nekk roi des arènes ñu laaj ko ko bëgg a bëree mu ne nañ ko jox Yékini xam nga ñu bëri xamin ko woon fekk bëree nañ si àll bi ay yooni yooni yoon daanewante wuñ te Yékini am na chance ba nekk roi de Sardaigne kële mu ngi jël drapeau chef de l'État ñëw fekk xamin ko moo tax bi mu waxee loolu kooku daf ko wax ne xam ko xamul dañuy wax ne dafa bëgg ko ko rey waaye Maama Lamine mun naa daan time boobu ku mun a daan Yékini parce que tasee neen tasee neen tasee neen tasee neen nekk defalante ne ko si àll bi waaye Yékini nag dafa nekk loo xam ne yàlla daf ko may Yékini bi mu ñëwee ba commencé bëree samedi bala muy bëree samedi ak ajjuma ak samedi bi mu ko bëree daan neen ko suma kam du benn yoon du ñaar yoon du ñett yoon. am na ñu ni Yékini benn defar rek la. non ñooñu xamin ko xam nga Yékini bi ko nit ñi xam fekk bàyyi na bëri moo nekk bi mu nekkee Dakar bi mu nekkee Dakar bëreewul parce que bi mu nekkee Dakar def na li muy def yëpp lii dafa ñëwoon di mottali rek waaye bi mu nekk woon si àll bi di bëree time boobu la doon bëri waaye bi mu demee ba jot dooleem toog na ay at kenn daanu ko. mais fekk nga fu ñu ko daan ay fekk du li ñu daan ko di xaaj du jeex mënu ma ko compter ay yoon yoo xam ne daan ko daanati ko daaneeti ko daanati ko ma la adole bi mu ko mbëkk euh, jiloor si arrondissement bi muy xam suma kanam la. man adole moomu laa demba moo nekkoon sëriñam laa demba moomu moo nekkoon sëriñ ñoom Manga moo nekkoon sëriñ Aliou Diouf mbër yu bëri moo nekkoon seen sëriñ laa demba boobu lu nekk def na ko si làmb lu waraloon loolu ma kamoon si yëkkin lu bari parce que man moo nekkoon suma mbër. adoli laa demba moo nekkoon sëriñam dee ñëw si teen bi di nandal nag laa demba ooma mu ne ma yëkkini daf ma bind leetar mu ne mu ngi jógee Casamance mu ne dina daan adoli waaye Ousmane xam nga loolu wóoru de ma ne ko ah lu tax loolu mu ma wóorut man mag laa ma amee mbër yëkkini bind ma leetar ne daf ko daan xaw ndax dëgg la wala du dëgg nii la ma ko waxee maa ngi toog moom gaañu na man maa ngi dund mu wax ma ko ma ne ko ah mu ma waaw mu ma baax na ñu toog foog naa tri de ñaari semaine leen si teg làmbu cilóor bi am ñoom ñaar ñu tase adoli daane ko ñu tase waa si te mënu ma lan laa la waxoon suñ doom bëree ba fukki yoon yëkkini at bi du daane kii ni adoli ma ne ko lu tax ma ne ko lu waaye loo ko mënta def da nga ko war a seet si mën ga bàyyi parce que kooku noonu den amoon rapport mbër yu muy defal ak lu mu leen ñuy defal yëpp daf ma koy wax munu ma waaye kon mun naa am duñ bëriwaat foog naa tamit ci combat boobu lañ gëj a bëri waaye foog naa afta balaa bi bi ay Yékini nekk roi des arènes am mujj gi sax moo Adoli am nañ rapport boo xam ne bëree taal bëri Adoli bàyyi na bëree kii ne benn am rapport di foog naa mujj gi dégg naa ne si entourage Yékini Adoli bokk na si dégg naa ko si ñu ñëw xaw leerul ma nag waaye dégg naa ko. mais kan moo la gën a yëm ci mbapat yow mbapat yi nga fekk yëpp moo commencé seetaan mbapat ba léegi temps boobu nga fi wax ba génération bees bi nii ñenn ñoo la gën a yëm. non xam nga soo waxee ñu yëm xam nga ñun. Ah, time boobu mbër yi doon daje foofu dafa bëri trop te mbër yu mun a bëree dafa bëri trop am na ñoo xam ne amin sens yu bëree arène am na ñoo xam ne time boobu Yékini si boppam su la waxalee aqulaay taala am na ñu ko munoon fuuf mosu ñu bëree arène because gaynaak bi nekk guddeem Yékini mosu koo daane te kooku mos ta bëri arène mos nañu bëree mos nañuy bëree bëree ne lu ëpp ten times bu yii ñu doro yii ñu gaynaa ko daana ko bi mu koy daan Sadio ko suma kanam la maa gaynaa ko ñoo àndoon dem maa jëlee guddeem la man guddeem laa dëkk gaynaako guddeem la dëkk ñoo jógee guddeem dem Sadio ko mu jógee ko fële ñëw gaynaa ko daane ko làmbi Sadio ko tasee neen bëree mbul jaame mu të tasee neen bëree feneen ñu bëree yëkk gaynaa ko daane ko yaamu moo mënoon Yékini ñaata yoon yaamoo Yékini nag bàyyiwuma xel fi ñu bëree parce que ñoom ñëpp ñoo bokk area bi ñu jógee mosuma bàyyi xel fi ñu bëree su ma dëgg rek laa wax waaye bëri na mbër yoo xam ne fekkee naa ñu bëree daane Yékini time boobu ñoo ko mun si bi muy door waaye bi mu demee nag ba nga xam ne jot na doomam moom itam mbër moo leen mun. bi mu jotee dooleem est-ce que est-ce que est-ce que na bi mu jotee doole moo xam naa ne benn mbër du mel ni moom. ci bëree wala ci. bëree si lépp respecté bëree xam ni muy bëree ak xam fi muy teg tànkam. kon Yékini techniquement fort na. yé Yékini li bi bëree si àll bi bëreewul ko dakaar moo tax ñun ah, ñun ñi nga xam ne dañ ko xam bi biñ demee ba dakaar bi biñ gisee ñu daane ko den xam ne jeexal na. parce que man nekk naa Yékini si àll bi lu mut ay juróom-ñetti at mu ngi bëre si àll bi joloore bu nekk mu def ko façon nit bu nekk mu daane la. xam nga ba bala muy dem équipe national ku ko gis da ngaa xam ne mbët complet la mbër complet parce que ku mun a bëree ñaari tànk te Yékini time boobu bala muy gën a kii ni nga jël tànkami teg ko sa mbagam noo mun a def mu daane la façon bëree bu nekk gis naa mu bëree ko waaw. ñi ñi ñi mu doon taseel kon ci ci ci arène bi da nga doon wax da nga doon wax su jàppee. Ah, doon tasee si arène bi man mosuma mu Yékini ba tey tey ku muy bëree dama gëm ne moo la mun. nii nii ni mu màggatee ba ni mu màggatee nii ku muy bëree gëm naa ne moo la mun parce que def na si bëree loo xam ne Yékini li mu jël si aar xam nga nit ñi ku nekk naan kii lii la jël kii la jël waaye li Yékini jël si drapeau si àll bi diggante ajuma samedi dimanche gisuma mbër bu ko jël gisuma ko. mais li nga wax dafa yeme da nga ne ba ni màgget yi nii gëm nga ni moo man ci làmb ji. mun si làmb ji fuuf ñun ko tëkkalee ne den mun bëree xam nga lu yàqu làmb ji mooy yow Dakar nga nekk mbër yi ngay gis Dakar la nekk télé yi ngi leen di génne kii nekk di bëree si tournoi ba dem si tournoi ba ñëpp ay three years ñetti at ñi la doon daan kenn mënu si daan nga ñëw bàyyi foofu nekk dakaar bëree nekk fa ñaata at benn yoon leen nit ñi di wax ne moom lay gis nga daan mooy bi ko kii daanee. drapo chef de l'état Salloo leen wax ne moom ngeen gis nga daanu léegi nga ñëwaat continuer nekkaat si loolu 15 ans kenn daanu la kon koy kooku moo mun ñëpp. kon keroog bi mu daanoo contre am nga mbette. keroog bi ko bala Gaye di daane man suma rakk bés bu Balla Gaye la doon support Lamine mu ngi itali léegi man Yékini laa doon support waaye bi mu ko daanoo am naa mbetteel waaye si élection dama xam ne nii la àdduna war a demee boo daanee say mag say rakk daane la. parce que xam naa ne time bu Yékini jeexal na. est-ce que Balla Gaye mënu ko nag. non non non mu nekkee moo Balla Gaye ñu nekk morom nekk kii nii ma non mënu koo mun. mais ci côté bëre lutte avec frappe combat yi nga xamante ne moom la ñu wane. ci combat Balla Gaye. technicité bi ngay gis ci Balla Gaye côté lutte avec frappe laa wax de. combat mi bokkul ak li Yékini wane. waa xam nga lan mooy problème yi làmb ñu bëri noonu leen ko joojee kii li mu wane système bi mu bëree ak lii bi mu bëree am na koo xam ne foofu yaa ko du ngeen fa egg. nit mun naa dàqa bëree si àdduna bi mu ñëw ak nit ñuy bëree combat bi xëfa xippi kale daane ko parce que technicité feeñut fa waaye bëree soo diggantee kii lim def ak gis nga kele bi mu def kele da ngeen fa àgg su ngeen fa àgg du fa am Yékini ñi ñuy bëri yëpp su ngeen téyewaat dañuy wax su la téye daan na la kon léegi naka la kele di amee waaye Balla Gaye nag dafa ñëw téye la def rotation fii def fii dugg génn affaire yooyu Yékini daf laa téye mu assuré na fi mu la téye baax na su la rëccee dafa daanu loolu kay kele am parce que luur tamit Yékini luur bi mu nekkoon bi mu bëree euh, bëree dóor yenn kele yi du ko mën a def waaye ñun ñi ko xam ne bi nga ko xam boobu mutul 80 kilos mutul dara ay 60 kilos yooyu loolu la mu peese noonu xam neen li mu mun si bëree soo ko wëree ndomba doo ko daan soo jëlee tànkam bi doo ko daan su la soree naax doo la ko daan dafa mboot dafa tànk dafa padd dafa def lépp amut loo mun a wax ne nii la ma bëree te mun a taxawee ñaari tànk loolu kay mbër ko mun ah loolu mooy mbër di. waaye bëre moom kon moom Yékini man nag Yékini dàq bëre Balla Gaye ah, xam nga man nag dëgg-dëgg man su ma jàpp-jàpp Yékini si àdduna bi gisuma mbër bu ko dàq bëre du ma wax ne moo dàq bëree kii na parce que soo ko waxee léegi dañuy wax ne moom nga faral. waaye man moom nga faral li ma jàpp gisuma ko ko dàq bëre. si Sénégal gisuma ko non ah, gisuma ko. ak Gambie si gisuma ko ku ko dàq bëree gën ko nekk mbër complète gisuma ko. loolu moom am naa si droit. am nga ci droit waaw waaye du moom jéema wax ne nag moo tax. tegoo ko ci far tamit tegoo ko ci far. tegu ma ko si far te soo demoon tamit nga seet ñi amee làmb Sénégal ak yëpp ak li nga xam ne sax binduñ ko ak liñ bind ñu fekkee démb ak tey ñu teg leen ñu teg mbëri Sénégal yëpp ñu teg Yékini li mu def si làmb doo gis ko ko compit waaw yow def ko te def def nga yow Yékini ak Tapha Gueye ko ëpp technique. Tapha Gueye Tigre Tapha waaye Tapha ko benn ngoon fukki yoon ak ñaar. waaw ah, loolu ci ko daa Lac de Guiers mënul. numéro 2 de Guiers dafa mën a bëri. mais na yëkkati rasu kan wi. waaye daan na ko mu nga daay plaqué màggeen moo xam ne am na juróom-ñaar fukki ah, mais yow yaa wax ne Tapha Gueye kii daan. Lac de Guiers mënut a Lac de Guiers de waxuma amul xam nga am na yéene sa doo ko wax. moo daan yëkkati ak lu mën a xew. moo ko daan loolu moom moo tax ba ko daane moo tax gis nga gore baax bi nga demee ba xam ne mënatuloo sa ay rakk di la dem man xoolal man foogu moo ne sax yëkkati na bëriwaat parce que man xam naa ko bu baax soo léegi nii soo ko gee mun na maa bañ a xàmmee mun na maa man xam naa Yékini bu baax. ba pare biñ ko Balla daane daanee wax naa ko suma xarit yu bëri ma ne leen Yékini du bëri waa ñaari komba parce que séeréer piir la te séeréer piir dafa am lu muy bañ. non duñ jël gàcc. moo tax bi ko la dëgër daañee mu jóg wax ki ma toogaroon di ko seetaan naa naa ko du bëriwaat mu ne mag lii xaalisam ma ne ko Yékini tey soo ko fayoon wal milliard du bëriwaat. mu ne ah lu tax ma ne ko comme jël na ñaari defe nii du yàq carrière xaalis jaralu ko. waaye moo dàq bëri Tafa Gueye. waaye bokkuñ sax Tafa Gueye dafa mun a bëri. Tafa Gueye man ma fekkee. Ah, Tafa Gueye mënul bëri la aussi yow. maa fekke Aliou Diouf indi ko Ndiafat. Tafa moom mën naa bëri lu ma xam nga yéen li yéen li mu bëree Dakar nga. maa fekkee Aliou ko Ndiafat. lu ma laa la mbapat kañ maa leen fekkee moom Aliou Diouf. mais problème mooy chaque jour nit daan ko ko dàq waaw Aliou Diouf a dàqa bëree ci wool bi moo dàqa bëree kuy bëree Aliou Diouf moo njëkk jël drapeau chef de Sénégal xam nga Aliou Diouf. dégg rek laaj. nga xam ko mu ngi fi mu ngi fii Kaolack fii su nekkul Kaolack mu ngi Dakar taraay nga xam ko Aliou Diouf a dàqa bëree kuy si monde bi Aliou fii la téye Tafa Gueye mu lekk ko su kanam maa ngi toog ah yow itam Tafa Gueye kenn daan na ko daanu kenn du ko wax. waaye nag Tapha Gueye a bëree moom foofu loolu foog nga. mënut a bëree ci kanam Yékini laa wax ma mënut a bëree ci kanam Yékini laa wax. Ah, parce que Tapha Gueye Dakar la nekkoon Yékini jógee ko si àll bi ñëw Dakar li Tapha Aliou Diouf def da Yékini def Dakar Tapha Gueye deful ko fa. lii Tapha Gueye lii Aliou Diouf defal Sénégal yë Tapha Gueye deful ko fa. waaw mooy Yékini lañ leen doon xàccoo ñoom ñëpp di ko soxla Yékini ko amoon waaw loolu la ñëpp doon ut Tapha Gueye loolu la doon ut Yékini loolu moo ko am te drapeau chef de li si Yékini def ba léegi kenn du ko fàtte ah kon kay koo ko dàqa bëre léegi wax ma ne lu Tapha daan na ay moromam daan na séeréer yëpp. daan ay jël tamit. yu rëy la ne daan mu doon dóor bi mu doon dóor maam jamaan muy kii nii loolu yëpp man loolu suma kanam la. la ah, njëkk daan daan maam jamaan daan ibu daan ibu ndappa daan maam jamaan loolu yëpp ñun gis ne fekkee nañ ko waaye nag ali Diouf mi Tapha Gueye daanoon soo demoon ba si Tapha Gueye nga laaj ko def la dina la wax ne Aliou Diouf ko dàqa bëre soo demoon laaj séeréer yi Aliou Diouf ak Moustapha Gueye ku dàqa bëri nee na mu Aliou Diouf a dàqa bëri. léegi dama lay laaj ci ci ci laamu Sénégal. ci Yékini ba ci ñu mujjee nii. personnes yi ci dàqa yow yow ñi nga ñe ñeenti ni waaw ba ci génération yi yëpp ci lutte avec frappe bi. ku ci ñi ci dàqa bëri da nga naan un diw deux diw trois. un Yékini. deux Balla Papi Général. kon Modou Lo Balla Gaye Pape Général ñoom ñëpp dàqal bëre Tapha Gueye. si man ñoo ma dàqal bëre wax ma nag ñoo ko daa ñoo ko mun waaye man ñoo ñoo ma daaxal bëre. Eumeu Sène noo koy def. Eumeu Sène mun na bëre waaye xam nga Eumeu Sène bëree am ak bëree ñële duñ benn xam nga ñële dañuy daan di daan di daan Eumeu Sène dafa daan di daanu di daan du benn kii daan di daan di daan ak kii daan di daanu ak loo mën a mën a bëree suñ la da sa jëli su emeek sa lii nga daan rek sa bëree du feeñ. waaye nag ki nga xam ne nag moom dafay daan di continuer ah, kii moom soo gisee maax la séeréer kii nii naka la tuddati ah, keneen ki papi général ñaata la daanu. ñaar yaakaar na la daanu. fu mu si digg xale lu tax mu bàyyi. sëriñ la léegi. sëriñ moo séeréer moo mel noonu waxuma séeréer yëpp la de am na si séeréer ñoo xam ne man si si man dëkkuma séeréer nekkuma séeréer olof la am na si séeréer ñoo xam ne. yenn gàcce yi di nga ko yóbbu seen kër ñaari yoon soo am na si dëkki séeréer yoo xam ne mbër nii nga dem daanu ñëwaat daanu léegi la de time boobu paay ñoo laa aussi dëkk digg pénc mi li ñu xam nga li ñu ooy pénc wax ne hey bu ñu yab bul ñu yab di dem di daanu di dem di daanu bul ko fi def indiwaati def la ay léegi làmb amatul loolu da nga gis mbër moo xam ne dañ la daan sax nga tàccu ni loolu di ñàkk jom mbër moo gis ñu koy daan mi tàccu ñàkk jom la mbër dañ laa daan nga mu jaral a xaru. rëg rëg foo koy dugal rëg rëg rëg-rëg xam nga si ñu ndaw ñi nga bokk rëg-rëg moom rëg beneen phénomène la xam nga làmb at bu nekk dafa. nga bëgg ko yoone boppam ci mbapat instant bi noonu nga bëgg rëg làmb ji moom làmb ji moom mbapatkat yi ñooy mbër bëree dóor moom da lu mottali rek waaye ku la dàqa mbapat moo la dàqa bëri gàmb bi am na amoon na benn ancien gloire bu ñëw paate paate waaw xam nga paate moom ke moo ko sippi loolu mooy problème moo tax Pathé affaire am moom carrière am yàggul <laughs> jame ku jame kay si film moom ah, affaire am yàggul. léegi yow promoteur nga manager nga wala lan man si président fédération nga bëgg ne. man non man yooyu yëpp bëgguma ko gis nga man poche yi ñuy joxe si lambi Gambie bu nekk ki ko ko jox bokk naa si ñi nga xam ne ñi ko fa teg si laa bokk man bëgguma poche si lambu parce que su ma amee benn poche li ma bugg a wax du ma ko wax ba pare dafa am naa gis nga Gambie fii ñii fal ñii folli mooy manager association man si ñu ko taxawal laa bokk biñ doon joxe pause yi dama ne man bëgguma si amee pause waaye li ma si wax tamit loolu du dañ fédération bi fi nekk tamit bokk naa si ñi nga xam ne ñi ko fi teg si leen si laa bokk soxlawuma fa pause waaye tamit li ma si wax dañ see bàyyi parce que ña fa nekk di liggéey yëpp amul ku ma fa mag te si ñi si gën a xam làmb si laa bokk fekkee naa làmb yu bi ma li ma seetaan si làmb amul ku ko fa seetaan si làmb xam naa làmb ni muy demee xam naa mbër xam naa xam naa lu bari si làmb su ma ñëwee si làmb mun naa si wax lu bari parce que yàgg naa ànd ak mbër yàgg naa ànd ak sëriñ làmb xam nga làmb tamit dafa am sëriñ am ko am na ñoo xam ne sëriñ leen rek waaye am na sëriñ làmb sëriñ làmb ak sëriñ du benn ñu bëri ñu ngi laa wax ne defal naa lee defal naa mun naa lee xamuñ dara munuñ dara si làmb làmb dafa am sëriñam waaw waaw. waaw sant yàlla rek xam nga Jamaïcain moom moom moom xale la waa xale bu am ambition la ñëw na fii di tëgg làmb yóbbu na làmbi Gambie su beneen leebul parce que làmb ji su nekkee international bokk na si li nga xam ne ñoo ko yokk am na ñoo xam ne dañ doon jël ay media Sénégal di ko indi fii waaye soo bàyyi xel Lutte TV bi nga nekk tey li muy liggéey si làmbi Gambie bëri na télé yu nekk Gambie ak site yu fi nekk mënuñ ko def soo loolu tamit dañ ko siy sant di ko si gërëm di gërëm tamit ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon jàppale Matar Ba dégg naa ci seen kii bi la bokk Matar Ba ministre. tamit si kii bi la bokk. jam production jam production la bokk. Matar Ba si ah. ah, kii ame fédération Sénégal bi si la bokk. ifi euh, nu mu tudd Birasène. si la bokk. Ah. Thiam Thiam président fédération bi si la bokk. ñun si Lamine Samba si la bokk Lamine yow si nga bokk. dégg naa da ngeen di liggéeyaate nag dégg ku seq yéen ngeen liggéey ko ba lu wax mu ne waaw. waaw loolu amul problème comme yow rek gisoo yow suñ la waxee guddi sax ñëwal da nga ñëw. waaye sant yàlla rek xam nga li am solo moor bu parcelle moor moom suñu moor la suñ demee dakaar suñu demee dakaar ñu ne moor ñooy nekk su ñëwee Gambie ñu ne moom ñooy nekk xam nga moor international la dafa organiser lambu Dakar organiser lambu Sénégal ñun loolu leen bugg si diggante Sénégal ak Gambie bugg neen tamit yeneen mbër. ministère lay liggéey wax na la. ah ah moor mun lu moor dara jàmbur ko si. góorandoo yi dara jàmbur ko si lambu loolu sant yàlla rek su nekkee foofu laa liggéey yàlla na ko si yàlla defal jàmm. waaye liñ ciy yokk daal mooy bugg neen mbëri Sénégal yi di ñëw di bëree Gambie bugg neen promoteur Sénégal yu mag yi ñëw tamit dugal seen loxo si lambi Gambie bugg neen promoteur yi nekk fii tamit dem di tëgg làmbu Sénégal parce que loolu moo nekk parce que gis nga li lay wan ne Sénégal ak Gambie benn la Modou Lo ak Ama Baldé bi ne am na problème bi fan leen xalaat Sénégal ñaata réew la frontière Mauritanie mu ngi fa Guinée Bissau Mali lu tax xalaatuñ dëkk yooyu ñu xalaat Gambie moo tax diggante Gambie ak Sénégal li si nekk loolu den ko war a jëmbat waaye waruñ di ci tudd ay kii Sénégal kii Gambie la ku koy def nekkaloo Gambie nekkaloo Sénégal xëy na Mali nga dëkk waaye ku dëkk Sénégal am nga mbokk Gambie ku dëkk Gambie am nga mbokk senegal li xew senegal mooy xew Gambie kon neen di bàyyi kii senegal kii Gambien la làmb sport amul loolu sport dafa boole waaye warta xaajale doo jël ne kii ngay jël kii lay li ñëpp ñëpp doomi Sénégambien leen den bëggum leket bëree ji Dakar ñun ñu ànd ak moom dem fa den bëgg France dem bëree ji Dakar ñu ànd moom dem fa den bëgg Baye Mandione ñëwaat fii bëree ak France wala leket loolu mooy tax diggante ñaari réew rata bi fi problème amee pro coow li am lamb la commencé tëgg nit ñi fàtte neen ko léegi nag lamb joo suñ ko bëggee yàqu di wax ne kii fii la dëkk kële fu ku koy def li ngay def xamuloo ko ñu bàyyi xel ci loolu di la ñaanal jàmm di la wax ne ñun tam làmb ji ñu ngi ñu siy jàppale ñu ngi la siy sant di la si gërëm di wax ne ñun daal Lutte bi leen àndal ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior mi ndaw ñi dinañ ko boole ak ki nga xamante ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu fa jàkkaarloo ak Pape Thiam numéro ne dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu